ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നജീസ് ഓളോടെ

المنتهى كلية البر أفيدي أكفى وعلي تربي بشهر رمضان شهر الأنعام والمنع والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغير نائم بسس وعن أكمدا قلوب جنة العداء شجار وغير الخير والمنام والجار قلوب جملة الذين أفلحوا سبيلة والجار والذين قالوا चले जाना है तो सुनना है वो समझो पीना जाता है उन दवे juróom ñaari yoon wër kaaba gi jeexal nañ ko ba waroon naan sam-sam tàmbali dox Safa ak Marwa umra bii nag ñu def ko ngir yàlla rek te defal ko sunu mbokk sunu soppe Cheikh Abdourahman Abdoul Khoudous radiyallahu anhu ñaan yàlla àggale ko ci moom te yàlla gërëm ko yërëm ko jéggal ko dolli ay leeram barke Cheikh Ahmadou Khadim wa ay sati maxduumi sallallahu alayhi wa sallam ndax umra bi Cheikh Mahamadul Mokhtar lañ ko defal moom laa ko defal Cheikh Mahamadul Mokhtar ñum sëriñ Cheikh Awa Balla di suñu bunt di suñu wasila ñu sëriñ bi indee fii umra gii ñu dëkk def dañ ne dañu koy defal sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi moom la jox ndigal sax nañ ko defal Cheikh Mahamadul Mokhtar loolu nag yokk kóllëre la loolu nag yéene aw yiw la yéene tiyaaba la ndax ku ne xamoon na diggante Cheikh Abdou Samad ak Cheikh Mouhamadul Makhtar kon tey jii bu fekkee ne dëdd na ginnaaw tey jii nekkaat njëlbeenu ñëw gi ndax 2018 moo ne fi indi woon ñu xaj ci tey jii mu indiwaat ñu ne ñu defar umra defal sëriñ bi umra ñaanal suñu wayjur loolu kenn mënu koo fay moo tax mu ne njëlbeenu umra gi dañ ko defal Cheikh Mouhamadul Makhtar te yéene ko yool ndax kóllëre moom moom ak diggante moom moom bu ñu noppee defal suñu ñaari way jur noonu defal jullit moom nga xam ne ku ci xaj du fasal la ci yéene la ci ndax defe naa loolu mooy taxawaay bi tey ji te ñaanal na Cheikh Abdou Samad mu yàgg fi lool وسمع حبيا مرة بلا يوم الدنيا الكلام يتقبل نجع عيال المستوى بعد الصلاة عسلامة الدنيا والأخرى يسلون بي تسعة عشرة فقدوا عن الشهر تيسرة يسلون بي تسعة عشرة bi ma defee sama sëñ bi moom la bii maa ngi ko defal nag sama sëriñ sëñ sooy bu Mbàkke moom sëñ Tuubaa si yool bi di tàggat si barkeel ànd ak sama jëriñ nag sëñ Gànda def nañ tawaaf bi ba noppi ñoo ngi bëgg a def nag bay na safaawal al safaawal mara moom la dox wala yàlla defal nu umratal maqbuula rek. waaw yàggal ci Cheikh Abdou Samad lool. waaw yàggal ko fi lool te wéral ko. مرشد وفرج عنه جميع الياء وارحم الله سبحانه salaam nee na maa usam sam li ma suñu kon maa ngi koy naanaa leen teel a suñ tubaab bu ne rek foo ma ne ne maa ngi leen naanaa leen sam sam di la ci fasal lan la gënal te gën ci yow te mooy suñ tubaab nangu la secteur bi bismillah